dikkati na manœuvre yaa ngi mel ni tulleeg le tribune yéene kaay naan maan ci jàppub dat kese ab dat dat boo xam ne ci lañ war a amal élection présidentielle yi ma ne la ma nga mel ni tulleeg màlle ku wax jaar nii keneen daal di wax jaar ne gaa yi ni ku ba mar day taali lépp ci benn dat boo xam ne ku ci nekk ma ngay xëccu naan dat wii daal fii la war a jaar ñeneen naan fële de média bi naan maan ndax coow li mooy ca ca paandaw la bu nu wootee dialogue waxtaan ba nuppi ndax mën naa saafara jafe-jafe yi nga xam na ci élection gaa yaa ngay wooteeb waxtaan waaye laataa ñuy daal di egg ca waxtaan ga ku ne nag jàpp naw datam turbine naan maan waa parti démocratique sénégalais coalition Karim seen problème du date seen problème lenn la moom moo di daal di commencé waat processus bi ñi nga xam ni seppi nañ seen loxo ñu daal di bokk seyal conseil constitutionnel def ko ab cour recours daal di cay mën a am bii conseil nga xam ne dafa daal di far seppi candidat waa Karim naan mënta nekk Karim yi naan ma nga ca waajtaay moom Karim Meïssa Wade waaye man ni la du yegg si Sénégal te tëggaatuñu élection yi élection yoo xam ne ñëppay bokk bañañu sempi sax la ni la dañuy bokk laas naan kon en tout cas waa parti démocratique sénégalais lenn la ñu séq ak président Macky Sall nee nañ ko tat ko moom heure ko jàppee baax na waaye daal Karim Meïssa Wade moom riigaat ko Karim Meïssa Wade ma ni la na bokk ci les élections yéen kaayu des médias bi naan ndaw lu ba noppi ci réew mi ndax président Macky Sall ca dat woowee lay ablee ne nag sës nan président Macky Sall ci miiru wis bi yemun ca ña ngay ñaabar ñaabareeg moom ban dogal la président ma Sall war a jël ko mi quotidien naan man en tout cas waa FC 25 ña nga naan tëggal président Macky Sall jàppal dat tëggal ay élection ci réew mi les fa yéene kaay naan kon waxtu woowu ñoom député yi day ña nga mer ba maar day taali ci communiqué boo xam ne assemblée nationale def na ko Abdoulaye ko askan wi Rose Wardini Sud Quotidien naan man daal dinay bàyyi élection présidentielle bi moom Rose a nga naan sénégalais yi maa sampoon sempina baay baay professeur Ndiogou Sarr naan attention bu leen jël lay ci Rose demam gi mënta teree benn yoon élection yi daal di tëggu ci réew mi Walf Quotidien naan yéen soxna yi wékk leen seen yaakaar ci Anta Babacar Ngom fin ne day moo daal di rangoo seen candidature ñaabar ñaabareeg moom moom kese mooy soxna si des ci biir candidature bi Aminata Lô Dieng soxna ni moom ne jàmmal Sénégal la ñu taxawal diggante Djibril Diop Abdoulaye Fall Fall Serigne Modou Gueye ak Massamba Diop taxawal seen mouvement ngir woote jàmm turbine yéen a mel ni ku naan koon soxla nañ ko de ndax fi ne daal réew mi na mu jaxasooye dafa sax daal di doy waar l'exclusive naan koon am na ñoo xam ne dañu naan processus bi na dooraat ca zéro am ñoo xam ne man la daanaka dañoo tàng xam lu wooteeg président Macky Sall ci dialogue bi te naan koon jàppal aw dat Isaaxa Diop ministre naan dara réew mi daal dafa am ay lobby yoo xam ni moo fi am ñoo xam ne dañuy ruu mandat ci suuf di def ay maar day taali bu ressources naturelles yi caxat caxatee Sénégal akub am amam crise crise ñenn ñi ma ni la ñoo koy daal di woote de ndax seen intérêt ci crise bu réewum Sénégal la daal nekk l'enquête naan maan fi ne géemu politique bi mi ci loxol Ousmane Sonko président Macky Sall laaj wa kay mooy lan la ñuy ruumandaat ci suuf yéene kaay bi naan maan fi ne mbir na mu jaxasoowee dafa ëpp direct news naan kon benn jaxasoo amul fii Guy Marius Sagna ma nga yuuxu ca kaw waxtu woow moom Abbas ñooy véritable médiateurs yi moom Ousmane Yaram yi moo taxawaloon protocole ak Abdoulaye Wade 2019 tey jii nag moo dëkkaat Cap Manuel ak Ousmane Sonko moom Abbas ci boppam dem na seeti président Macky Sall te di tunu yooyee nga xam ne ñu ngi leen di bàyyi ma nga daal di tukkee ci les négociations gouvernement boo xam ni dees na ko yaatal moom la président Macky Sall bëgg taxawal war a am tàng nag xool nees def ba tëgg élection l'observateur naan koon moo taxit jàmm daal mi ngi daal di delsi bi joojee mënta mujjee andi ay jafe-jafe vingt quatre heures yéene kaay naan koon mukk jàmm ji kay mooy ñu génnee prisonnier yëpp e DDN info groupe whatsapp la 76 693 89 04 abonnement 1600 chaque fin du mois 1600 foofu la mbokk yi ne prisonnier yëpp ba ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ndax président Macky Sall ak Ousmane Sonko bu nu di xëccoo xiiroo ko ŋaayoo daañu dugal Sénégal ci guuta goo xam ne mënoon naa ñàkk le quotidien le quotidien naan kon en tout cas protocole yaa ngi dox ba tey wax bi yéen a kaay xëy sampub laaj ndax nak taxawal ab commission d'enquête parlementaire ci détenu yi lañu wax ne mom lañ dund ci kasso Sénégal yi warul jaxan na ma danaka manes na koo méngale ak lañu génn wax ne dund nañ ko ci kasso réewum Sénégal gi ñu tek leen ay métit yo xamne ne maar day taali toroxal leen gañ leen libération yéen kay nan kon waxtu wo juróom ñaar fukk ci ay détenu ña ngay xifal ci sigi cior bokku na ci ñoom ay soxna ay mineur Amadou Sané maire bu Jakkunda di responsable passé turbine yéen kay nan kon commission d'enquête parlementaire salaire yi kañ lay am le témoin yéene kaay naan kon en daanaka jaxandama dund loon ko ñoom detenu Pastef yi tuumaal nañ leen jàpp leen te amul motif bu dëgër jël ay weer daal di leen di làq jant bi ñu daal di jógee fu sori ñoom prisonniers yi daanaka doon ni miraculé doon ay ndaw yoo xam ne ñi seen digg àddina ñu daal di leen di tëxañ jagat jagatee taxañ ci anam woo xam ne ñaaw na salte na yóbbu leen daanaka ci ay jaxannama ci kaso yoo xam ne suñ leen laajoon ñii lan lañu manifestation ñenn ñi takk bracelet Pastef ña def defi poste yoo xam ne dañuy sargal Ousmane Sonko ña ca def seeni tur képp moo leen yóbbu kaso tribune yéen naan leen sama wax ja ubbib enquête parlementaire ngir détenu yi am ci réew mi mbaa duñ ca daal mujjee le point ak ci naan kon laataa loolu mbaa deesul lijjanti réew mi ba nuppi ndax jaxasoo na de élection présidentielle bi ma ni la bu amee ci deux mille vingt quatre yàlla Rose na

Dakar mbëbës deux la ci xolub Ndakaaru lu ne ma ni la lu ne mën a am ca xandaar deux gee Moustapha Niang délégué de quartier ba naan juróom ci néewi bébé gis nañ leen ci mbalit mii l'évidence naan kon boo moytul Ndakaaru géppay mel ni mbëbës di ndax ñi nga xam ne ñooy an mbalit ma ñi ngi ci gréew fukki milliards ak ñeent la leen état bu Sénégal yoreel le ko le quotidien naan kon boobu Dakar naaf mi ngi ci guuta contrat moo daal di jeex moom Dakar naaf di sàkku ñu daal di koy xaatimaat ngir intérêt ñaari parti yëpp moom Ousmane wan naan xaatimaat ko day ñaari parti yëpp ci mën a gañe ndax Dakar Dakar naaf tax na état bu senegal daal di gagné fukki milliards ak ñaar la ñuy tuumaal naan état leen jébbal fukki milliards ak benn ñu joxe ca benn daal dina koy weddi ba mu set wecc moo tax Ousmane naan intérêt gi mooy dakaar naaf ak seen daal di déggoo chantier yi daal di tàmbaliwaat ndax contrat yi ci boppam bañ a dakk l'observateur nan tës baa ngi de waa ji dafa dem kër coroom ndeke coroo ga dafa am borom kër fàtte fak mbaxanaam dellu di ko jël borom kër ga songu ko mu dóor ko birig mu daal di xëm lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm